tey amul déen mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu lu bari ñoo ngi leen di nuyu lu bari di leen sant di balu xaq di sàkku seen ñaan di leen ñaanal di leen ndokkeel ci bis bi ak daje bi ndokkeel gi li ko waral loola moo xam ne yàlla ak yonent bi ci biir cadre l'islam rek moo leen dajale ñu woote fu ñu jóge lépp jublu gi di lenn bëgg gi di lenn lu jafe la lu jara sant yàlla la ndax mboolem jullit yu daje ci benn bërëb mel làmp yu bari yu ñu taal xolu jullit bu nekk làmp la na bu fekkee ne lu leen boole nag diine lislaam dong la ci farata ak sunna moo gën a amati solo te yërmande yàlla lu yaatu la kon yow nga am yaakaar te ñaan képp ku fi ñëw wala nga am yéene ñëw te am gàllankoor sa tànki dem ak sa tànki dikk yépp yàlla na ko suñu borom lalee ak njëggal te def ko muy ay daraja yomal xiyaam te boole na ca gaa ñi nga xam ne alladina yubaddiluuna sayyiaatihim xasanaat yal na ko suñ borom defal bi jaay rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam boole mu nag ngeen baal nu xaq ñu sànni tuuti ay kàddu ndax ay jullit bu ñu dajee bala ñuy teqli ko war nañoo delloo si seen bopp ci yàlla ndax xol ni ñu ko faral di waxee rek ñu mën leen di dundee xolam yi mel ne seetu seetu bu jàkkaarloog liñ ciy seet te dëngul dooxul tilimul la ngay seet day mel na nga xam ne moom la jëmm ja te du soppi ko dara waxtu wa xamee seetu bi wal ko na wane gannaaw mooy xol bi borom gëmul yàlla kooku moom leeru yàlla du ca dugg mukk doom fu mu jaar bu wal tuuti waaye mu xaw a jëng xam ngeen ne suwar yi cay feeñ maanaam image ya day deforme loolu mooy xol jullit di gëm te ngëmam matul di walbatiku jàkkaarloog li muy seet nag lenn rekk ko mën a tënk mooy seetu bi taq seetu bu salte ba tilim ba tey li ngay xool du la leer loolu mooy jullit bi nga xam ne gëm na dëgg dëgg dëgg li ñu gëm lu waaye am na bàkkaar bàkkaar bu nit jëf taas lay def ci xolam maanaam tomb bu ñuul lay def ci xolam na mu gën a baree la bàkk na bàkkaar ba gën a bare la xol ba gën a tilime nit ki day dem ba julli ñaari rakka wala toog fi bërëb fàttaliku boroomam ndox ñetti kilomètre dem dellu see ko koy gën a yomb ndax nit lu bàkkaaram gën a bare rek la ko jaamu yàlla di gën a jafe kon xol seetu bi nga xam ne dafa wëlbatiku jàkkaarloo suwar suura bi ñu koy wan buñ ko fompee ba mu set te mooy nit ki tuub ba amatul bàkkaar ne ko gënal lay mel bu fekkee ne seetu bi dafa xóot dafa ni ñu ko waxee dafa xóot dafa konkaaw mooy mu tàlliwul ñuy seetu bi mel dafa def nii xóot xam ngeen ne suura ba maanaam image bi muy seet day déformé du mel na mu war a mel naka noonu bu dooxloo ba mu ëpp itam convexe ba tey image bi du mel na mu war a mel kon seetu bi nga xam ne mooy wan boroomam boppam ba lu ca ne mu gis ko day set jàkkaarloo kanam gi te tàlli ñaayi xolu jullit noonu la demee ci digganteem ak leeri boroomam kon waxtu wu nu dajee rek fu nu daje war na nuy jëlloo si sunu xol loolu mooy tax jataay am njëriñ ndax dañ ne yomal xiyaam bépp jataay boo xam ne nit toog na fa ba jóge fa te fàttaliku fa yàlla ak perte la yomal xiyaam ndax nit waxtu woo xamee ne mu ngi génn àdduna dundam gépp la ñuy tàllal lal ko ci kanam mu mel ne malaan mel ne ndif gi bépp béréb boo xam ne weesu nga ko te di fuloo ca lenn loo xam ne lii loo am njëriñ la ci sa ëllëg day mel ne dañoo rocc ci bant yañ ko ràbbe woon foofa dara du fa nekk mel ne mbubb mu ngay solit bu dee def léeg-léeg ñu ci morso day dem ba dugg la suturaal noonu la sànq sa dund ci àdduna mel waxtaan wi nag dañoo sàkkoon tem daanaka ñaari tem yoo xam ne maanaam ñaari onwaan yoo xam ne bu ci nekk eh, wane nañ ko mais nañ ci waxtaan waaye sorewuñu mën nañoo yëpp mën na ci dugg bu njëkk bi moo doon dañu wax mbokk gi nga xam ne moo war a nekk diggante jullit ñi ñu xamante miinante di ziarante di diisoo bokk jublu bokk lu ñu bëgg bokk lu ñu bañ di dimbalante di fàttalente di waarante benn bi moo doonoon xale yi ak lislaam ci jamono ji ñu bu ci nekk di lu am am solo bi nga xam ne mooy mbirum gone yi ak lislaam moom day lu tiitle ndax jamono ji ñu toll ni mu demee te muy loo xam ne li umpul kenn ndax yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne ko indi woon ngir yërëm bindee fii mu ne innama ana rahmatul muhdaat du man lenn lu dul yërmande yàlla ju mu jox bindee fi leeraloon nanu ni mu nekkee yërmande yàlla ci mbindeef yépp jullit ak yéefar waxoon nañ ne yomal xiyaam bi nu misaale woon tiisu taxawaay ba ak yàggaayam moom doo nga fay xet li mbindeef yi ba suñu borom àtte ndax kenn ku nekk ngéejoo woon nga doonte da dangay dem safara sax da nga jóg ci tiis woowu waxoon nañ ko kooku nag nga xam ne suñu borom daf ko indi ngir yërëm mbindeef yi itti woo woon na seenu mucc ëllëg ndax xam ne ne àdduna moom amul solo nee na àdduna ba ko suñ borom bindee ba léegi mosu koo xool ndax ñàkkal ko solo léegi àdduna bañ ko peesee ak laafu yoo laafu mu yoo ma wat ko la suñu boroom giñ ne bu fekk fekkoonte ne gën naa diis laafu yoowa lu bon bon ku ko weddi doo ci mos benn góox kon àdduna suñu borom ak yonentam xamal nañ ne amul solo ndax buñ la mayoon àdduna ak li ci biiram lépp xew ngay xewlu lu ba gën a mag bis boo tolloo ci sukuraat dana mel ne mosuloo caa jaar ki gën a sonn ci àddina gën cee am naqar ak tiis gën cee tawat gën cee ñàkk gën cee sonn ñu gën ko cee wayafal yaa ngi moom ay yem képp bu ngeen tolloo ci sukkuraat la fa nit di gañee nit mooy ko ko gën a bari wattandiku te ko bari topp ko gën a bari fàttaliku ëllëg fàttaliku di tiit doonte jëfewoo ko sax loo am njëriñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi mu waxee ne suñu borom du boolee ñaari tiit walla ñaari ragal ci doomu aadama képp koo xam ne sa ëllëg tiit loo na nga xalaat jéggi siraat xalaat siraa yu bàmmeel ak suuf si ni mu diise ak nu nit gaaw a xëje fàttaliku sukuraat fàttaliku taxawaay ba boo ko dee fàttaliku ba tiit am ci naqar lu bon bon suñu borom dana la sagal njàqare loolu nga amoon ëllëg dana la ko sagal ndax yow mi ko fàttaloon képp kuy xisaab sa bopp bu ëllëgee suñu borom du la xisaab xisaab sa bopp mooy léeg-léeg nga tëdd ci sa lal seet ba fi nga jaar ak li nga weesu li nga xam ne jamono yi nga xam ne sax jaamu moyuloo ca yàlla waaye defuloo dara sax nga xam ne ak perte la te dund gi benn yoon nga koy am doo ko amaat beneen yoon te loo ci deful boo xasee ba tàmbalee dee wéy na raw na la ba faww day fàttaliku loolu fàttaliku li nga perte nga jéem cee dabaatal la nga man di fàttaliku li ci sa kanam mu leer na la li nga xas ba weesu moom loo ci defu rek perte nga ko te bu ëllëgee gannaaw genn noo gi rek mu dem dellu si te jàmmoo ci yàlla delloo suba ci sa ci yàlla amuloo ci njàqare wala tiit seetuloo ci sa bopp ndax foo jëm ëllëg seetuloo ci ku la gañe ci jaamu yàlla seetuloo ci dara genn noo gi rek lañ wax ni ëllëg perte la ci doomu aadama bi kooku nga xam ne nag moom la suñu borom indi muy yërmandeem ñeel bindeef yëpp yittewoo woon na mbiri jullit ñi ba wax lépp loo xam ne luy ñëwi la ba ba saa di taxaw xaddis bi wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis julli ne suba dal di jóg toog ci kaw minbar bi di waare di waare ba tisbaar jot mu wàcc julli dellu di waare ba takkusaan jot mu dellu si waat julli ko taxawaat toogaat ci kaw minbar bi di waare ba mu soob suñu boroom mu dem li ca kër ga bépp mbindeef boo xam ne da nga réeral ñaari nit wala ñetti nit tudd na sa tur ak sa tur ndey ak sa turu baay képp koo xam ne kii juróom benn nit topp na la ak foo leen jaarale ci yoon wu jub wala yoon wu dëng ak nañ lay toppee yomal xiyaam xaq ji ndax réeral ba nga leen réeraloon yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko saxaaba yi neen ña ko ca fàttaliku fàttaliku nañ ko ña ko fàtte fàtte nañ ko tur ya nag lañu mënul a jàpp ndax tur yoo xam ne bu turi arab tur yoo xam ne tur yu nekk ngi ci ba adduna daj duñ ko mën a jàpp ñoom waaye fàttaliku nañu bari nit ñooñu nga xam ne ëllëg daañu fi ñëw bu fàttaliku nag mbirum lu ñuy wax almasiixu dajjaal mu di jaam bu suñu borom di indi ci mujj jamono nga xam ne yàq rek a koy tax a jóg te dina yóbbaale bu keroogee yoonu safara wi day fees dell yoonu àjjana wi ne wéyën nga xam ne bu fukki junni nit deexee bu kenn nit demee àjjana bari na xam ne mucc lu jafe lay doon mu xalaat ne loolu xëy na buñ ko de seet suñu réew mi rek day daal di doon lu sore sore ci suñu xalaat ne ak seegul waaye bu seetee àdduna bépp ñu seet li ci jullit ni ñu néewe gis jullit ñi itam ñi ciy jubal dëgg ni ñu néewe daanu xam ne amul loolu lépp lenn lu jafe wala loo xam ne lu jomb la lu mënu la nekk léegi nag kon bu ñu dee waxtaani mbirum xale yi nga xam ne dañuy soog a jóg di dajeeg àdduna bu doy waar àdduna boobu nga xam ne ci la jëm te muy adduna bu tiitle àdduna bu bari ay pexe ak yàq ak yu réeral nit aduna boo xam ne dana jafe nga gis koo roy wala ku lay wax lu lay delloo si aduna boo xam ne nit ñi dañuy fab fa ñu waroon teg yàlla ñu teg fa xaalis aduna boo xam ne doomu aadama yi seen intérêt dong la ñuy seet aduna boo xam ne nit ñi bu ñu doon yàq diine ji du leen jaral mer du leen jaral jóg waaye li ñu am buñ ci jëlee fix rek jaral leen jóg jaral leen xeex jaral leen xuloo jaral leen tàggoog seen i mbokk ñu topp ci aduna boobu di wéy yu rëy ba maanaam dañ ci waxoon yépp ci ay bon mbon ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne daan toll ci béréb boo xam ne jamono joo xam ne ki tëyee diineem day mel ni ku ñëpp xalu safara ci metti ci moom day tumuraanke kenn du ànd ak moom lu mu wax ñu weddi ko ku ko seen jàdd lu mu def ñu dindi kenn du ko mbokkoo dañu naan li muy wax dafa metti li mu wax dafa soxar jiw dafa tiis bu ne nangoo jëgg dara loo xam ne li lu dul seen bànneex ñu tàmm seen bànneex ba ci leen di wax seen bànneex la ñuy déglu xam ne nit ki bu toogoon fii di jàng al alquran ñu néew fay taxaw bu ñuy jàng ay xasaayit lu mat juróom-ñett ñu dafay taxaw waaye buñ tegee musique fii walla ñu tekkum po day fees dell kenn fa xam ne doomu aadama yi waxtu weeru koor jotee fan yu njëkk yi ñu bari moom la ñuy bu buñ ko weesoo dootuñu woor ba ba ñuy wori te li leer moo di ne bu fekkoon te ne dañu ne woon ku woor ba so ñu jox la cent mille francs bari na ci ñoo xam ne ñu dootuñu dog mukk mukk bu weer wi jeexee sax dañuy dañuy bëgg ñu tegaat ci weneen weer te te xam ne xel liñ koy fay ci koor gi day niroowul ak cent mille francs niroowul ak million niroowul ak sax ak milliard ndax loo xam ne lii muy adduna ji lum bari bari lum neex neex yow xamuloo da ngay xëy suba ñibbi àllaaxir xamuloo da ngay gont sa xew xew boobu bu xasee ñëw jeex na amatoo dara looy fàggu foofu moom kenn dootu fa fàggu lu waay fàggu fii rek la koy fàggoo xale yi nga xam ne nag dañoo bëgg a jóg ak ñi soog a jóg aajowoo leen yar yee leen jubbanti leen te ñi leen waroon a yar ñoom seen bopp xamuñu lu dul yar ndax jaaruñu ca looluy faral di wax naan wajur yi tubaab di wax dañoo démissionné maanaam li ñu doon leem dañoo mujj rocc seenu buum bàyyi takk jéematuñoo takk ndax euh, góor wala jigéen am doomam mënatu la yilif doomam mënu ko digal mënu koo tere bu ko jegee daf koy fatanqal du bëgg lu dul mu dem fooyi du toog waxtaan ak moom du ko xupp du ko def dara bu ëllëgee dana layoog moom te bu layoog moom xale bee koy yey ndax ab yar moo jiitu ci doomu adama te ku ko amul dañ ne nit ñetti xeet rek la xeet yi nga xam ne aaju woowu ñu yar ku leen yar ñu jub ku leen yarul ñu jub ñooñu ay benn benn nit lañu ñooy yonent yi ak yeneen yi ñeneen nit ñu néew si Abdul Qadir Jilaani radiyallaahu anhu bu mu koy misaal boo tudd na ca Sayyiduna Xadr tudd na ca ku mel ne Uwaysul Qarani waaye ñeneen ñi ci def ñëpp mooy ñi gën a bari ñeneen ñi gën a néew mooy ñi nga xam ne yar jëriñu ci ñoom dara dara dara lu wax mu dugg ci nopp bii sar ca nopp ba ak ñi xam ne fu ñu déggee loo xam ne lii waxtaanu yàlla la du leen jaral toog dañuy dal di dem boo leen waxee dëggit ñu def la noon dootuñu ànd ak yow dañ lay teggi dootuñuy saqoog yow dootuñu jaxasoog yow dañ lay wattaniku bu baax ak ñi nga xam ne fu ñu déggee dëgg sàkk luñ ca teg ñoom ñëpp mu di jaam yoo xam ne dara lu jëm ci yiw wala diine du dugg seen xol mukk mukk mukk fu ñu ko déggee sàkk luñ ca xol wala luñ ca luñ ca teg wala ñu contre ñu gën a bari ci nit ñi nag mooy ñi nga xam ne bu ñu leen yaree ñu yaru jub mucc ëllëg mucc ci àdduna mucc àllaaxira buñ leen yarul mbedd mi leen di yar rajo yi ak yi ak yi ak roman yi ñu di jàdd yoon wi jaar yoonu texee di ba ëllëg ñu sonn daañu sonn waaye seeni waajur daañu sonn ndax daañu layoog ñoom daañu layoog ñoom ndax gone boo ko amee war nga koo xamal ahkaamul tawxid ñi ci gën a élémentaire ate tawxid tawxid mooy lan mooy xam foo war a teg yàlla nga teg ko fa mu jëkk ci xol bi ndax dañu ne xol bi ñu gën a yaakaare texe ëllëg ak mucc mooy xol bi nga xam ne yiwa ci jiitu maanaam tawxiida ci jiitu te xol bi ñu yaakaare mucc ëllëg mooy xol bi nga xam ne dañ koo jëmbat di ko suuxat wala bu dee ndab dañ koo raxas sotti ca ndox lan mooy ahkaamu tawxid mooy xam yàlla tabaraka wa taala nga xam ci lu doy xam ndax téere tawxid yi xóot nañ ci waaye loolu lépp du farata ku ne xam ko li ku ne war a xam mooy da nga xam ne suñu borom jalla jilaaluhu wa azza kamaaluhu meloo ne meloo woo xam ne dara melu ni kenn mun la xalaat sa xel ba xam la yàlla mel suñu borom tàmbaleewul fenn fenn fenn fenn te du yemi fenn amul dara luy xew ci nguuram gi te du moo ko namm programme yi ne lépp suñu borom amul teyeg ëllëg wax nañ ko ba tàyyi amul démb kon lépp a teew ne si borom si moom suñu borom kon loolu moom la ñuy wax yàlla noppi na ndax foo mën a jaari da da war a mucc xam na ko ba noppi ndax gannaaw amul ëllëg ëllëg ak teeyam ci moom kon dara ump ko nit ki fi mu jaar itam da ñàkk a mucc gis na ko ba noppi kon forcé wul nit ki ci na dëng wala na jub déedéet daf koo xool ba mu jëf ba noppi mu arrêté loola mu mu jëf ndax amul ëllëg amul démb moom yëpp a teewandoo fi borom xam ne kon suñu borom jàlla jalaaluhu ak sa kamaaluhu lu dul coobareem du am nga xam ne bind na ay malaayika te malaayika du lekk du naan ñu ngi ci asamaan si nekk ci suuf si ay xeet yu bari lañu xamuñu lu dul sàbbal seen borom ak màggal ko ci loolu lañu lekk la ñuy lekk ci la ñuy naane duñu lekk duñu naan duñu mooy yàlla amuñu bànneex lu dul sàbbal yàlla ak màggal ko ak warmaal ko ñu xam ne suñu borom bind na ay yonent yoo xam ne ay doom aadama la ñu doon duñu doon ay malaayika ndax dañuy nekk nit ba nit ñi mën leen a roy ndax bu ñu dul woon bu ñu doon malaayika nit ñi duñ leen mën a roy xam ngeen ne yoon si yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne genn wàllam nit la genn wàllam di malaaka sax sëyul woon yorul woon kër kon loolu nit mënu ko nit ñi mënuñu ko cee roy waaye Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko def muy jëmm ji gën a mat ci jëmm yi mel ne nit ñi niroom ñoom ci lépp nga xam ne moom suñu borom daf ko may ci kàttan loo xam ne mën naa sax bañ a def benn kawteef waaye def ba nit ñi gëm ko ndax mat gi mu mat ñu war a gëm ne malaayika yonent yëpp suñu borom daf leen a matal mat gu mat sëkk waaye du tee ñu mel ne doomu aadama yi ci dañuy lekk dañuy naan di xiis di mar di fàtte di ñàkk di tawat di wér lor di leen dal ñuy sonn lépp lu ñuy def ñu di ko def ñu gëm ne yomal am saa day taxaw ñu jëmbat ko ci xeli xale yi ba nga xam ne xam nañ ne nit ku nekk ñaari malaayika ngi tam ci sa ñaari mbagg yi laa def ñu bind ko sa ëllëg da koy régler su boo amee doomu aadama wala lu toll ne bën bënu pusa bu la ko baalul doo jéggi siraat mukk tafay yokku ko nga xalaat doomu aadama bi xaq yi nga ko ameel muy ndey baay nga xam ne da ngeen koy layoo ëllëg muy ñi nga da ngeen koy layoo ba ci ñi ñi xam muy jullit muy yéefar kenn ku ci nekk moo ko ameel nga xam ne njëriñal adduna lu am la waaye njëriñal àllaaxira ko ëpp ku solo te suñu borom dana nattu jaam bi xañ ko adduna ngir ëppale ko àddina ngir bëgg ko xéewal ëllëg xéewal bu mag boo xam ne day taxaw ca raw fa yonante ya taxaw mu xañ ko àddina ngir loolu mu wóor ko ne lu ko mën a dalit lu metti metti wañ koo naqar lu ndax jullit moom bu xasee ba di jullit gëm na yàlla la te lépp lu ko dal yàlla tawat jooju mu tawat wala ñàkk boobu mu ñàkk ki am bu xamoon daf koy ñee ndax li ko suñ borom teg mu wóor ko ne ay maqaama yu mag rek ëllëg lay doon li nga xamee ne dégg ngeen ko ci wolofal wi te yàlla moom xarit balay musi baal ngir dara jaal ko mbaata muy ku muy baal ku yàlla sab sab nattoom ba teg la ila axirihi ila axirihi nga xam ne kon jullit xale bi war nañ koo xamal ne gannaaw moom dafa soog a jóg te war a defar addina war a defar alaxiraam war naa wàññi poxam mu xam ne addina ak alaxiraam yépp a ngi ci kanamam te war na am meloo woo xam ne bu ko melowul dana sonn ci addina am meloo woo xam ne bu ko melowul bu ëllëgee alaxira dana sonn bu fekkente ne moom xam na ne gannaaw yàlla lépp suñu borom mu ko teg ci loxoom ci kaw yar biñ koy yar ak góorgóorlu boppam gi muy góorgóorlu boppam mu wóor ko ne lépp lu mu am moo ko sonne lépp lu mu ñàkkit moo ko sàggan mu wóor ko ne lépp lee xam ne yaa ngi koy def sa morom sa morom gàññee na la ko ëllëg ba nga koy def yaa ngi jàng moom mu wóor ko ne adduna bi mu jëm ëllëg war na jàng xam laajte waxtaan ba yeewu bu mu ëllëgee kenn du ko mën a jaarale yoon woo xam ne wii du yoon wa gën bu ëllëgee du gis lu dul noonu ba loola nax ko kon bu fekkee ne def nañ ci boppam ne ko sa adduna ji da ngaa war a am melo woo xam ne melo lañ tudde valeur ndax valeur solo ci nit jëmm mooy valeur valeur benn jikko ju rafet la dana jox nit valeur war nit ki war ne ko sàkku ci bi muy ndaw te muñ moo koy jox gannaaw yàlla bu ko yàlla bindewul ndax nit ñaar la nit ñu baax ñi ñaar lañu karim ak hakim karim mooy ki nga xam ne yàlla daf koo bind jox ko jikko yu rafet yooyu nga xam ne sabab luu ko sàkku ko sonn ci noonu la ko yàlla bindee hakim mooy ki nga ci seet ba xam jikko yu rafet yi ni mu gëne yi ci def mu xam li am maanaa ak li ñàkk li nuru dara te lu dara mu daal di sonn ci boppam ba yar boppam góorgóorlu tàggat boppam ci jikko yu rafet yi ba jox ko boppam kooku mooy hakim jikko ju rafet nag bokk na ci liy jox nit valeur bokk na ci liy jox nit valeur jikko yu rafet yi yëpp muy laabiir muy yéene ñëpp jàmm muy ñàkk kañaan muy wattu sa lamiñ muy amug yowwute ak xam-xam boo xam ne kenn du la mën a nax lu baax li nga yor ñu wacc loola ko jox la leneen bokk na ci itam xam adduna gi xam boo xam ne da xam ne li ci nuru dara te du dara ak li ci dara am itam bokkal ci jikko yi nga xamne itam yi jox nit valeur la modi muñ bu doom aadama yi demee nag ba nga xam ne valeur yooyu dañ ko teg ci suuf dëggaate ko ba nga xam ne kenn dootu xam ni mu amee solo boo dee ànd ak nit ki doo tànn borom jikko yooyu nga xam ne daf lay jëriñ li ngay tànn mooy ku lay mën a jëriñ jëriñal àdduna xam ne boobu yàqu-yàqoo ngoor ak njuumte ndax maam cheikh dafa ne laa ko uxayya min sadiqi li ajli dafa shiddatin wa diqi booy wut xarit na nga seet ki yoo xam ne danga nga ci moom ci ay jikkoom ak meloom ak i waxam nga xaritoo ko mu jubbanti la jëriñ la ci adduna jëriñ la alaxira waaye bu ko def rek ngir bëgg dàq am ñàkk wala dàq coono wala wut wërsëg loolu dafa delloo si yi nga xam ne moo fi nekkoon démb bërki démb ñu daan ko toppatoo di ko seet teg ko fu am solo te léegi ñu dem ba ñu ma waxee rek ne fañ teg yàlla xaalis lañ fa teg loolu yëpp ñu daal koy fàtte xale yi mujj a juddu nag ñoom ñoo koy gën a umpale ñu ko teg muy dara ki xam ne dafa farlu ci jaamu yàlla dañ naan dafa fanatik dafa tardé dafa yeewul te fekk ne kooku rek yeewu ki nga xam ne itam dafa am kilifa dañ naan amul bopp amul fulla amul fayda ñu seet ne liberté am na solo waaye dafa am ay limite ak it nan la l'islam gisee liberté l'islam liberté gi mu may doomu aadama li ko limité mooy xaq yi jaam ñi ndax nit ki bu ko wóoree ne ëllëg dana layoog jaam ñi te nit bu doon jàng fii alxuraan wala muy wax kaal wax kaalam bu ko itteel nga yooxu ca kaw wala nga kaal rajo yëkkati ko ca kaw ba dootu xam li muy wax rek sax ameel nga ko xàq yoo xam ne bu ëllëgee nga ko seet l'islam valeur yi muy joxe moom rek a mën a yor adduna buñ seetee réew yi gën a développé gën a développé ba léegi amuñu jàmm ba tax ay catastrophe yu naturel ak yu humaine ay xeex ay rayante ay géej yuy baawaan di nangu ay kër ay safara yuy lakk ay àll di rakk àll ji nit ñi amoon nga xam ne kon adduna moom ci boppam moom la suñu borom deful mu war a jub ba nit ñi am texeg adduna gu mat loo yootu ba mu xañ la jàmm nga di ko sàkku bis boo ko amee daanaka dangay mel na nga meloon rek kon amul dara lu ci jar sàggane sa ëllëg amul dara jar ci àddina sàggane sa ëllëg te dëkk boo xam ne xëy na doo fa dëkk téeméeri at wala juróom fukki at wala juróom-ñett fukki at nga jënde ko nga jaay dund boo xam ne dangay nga fay am lu kenn mun la xalaat lu ëpp kotti su tekki su fi ci at nga jënde ko lu néew aji jaay jooju moo jaay perte ndax dañu ne ëllëg yomal xiyaam rek la ñuy xam ki jaay gañe ak ki jaay perte waaye nag daañu ko xam balay yomal xiyaam ndax nit ki gannaaw bu tolloo sukuraat dañuy indi jëfam yëpp teg indi pas-pasam yëpp teg mu jar nag ñoom bu boobaa rek lay daal di tàmbalee xam li nga xam ne ca euh, jëf ak dundam ndax nit ki yonent bi nee na sallallahu alayhi nit ki ci lim dundee rek kon nit adduna bind bu dul mokk la bind boo xam ne bii bis bu ne nga am bind bu bees njàng mu dul mokk la te gannaaw bis bu nekk bu ñëwee indi ay problème indi ay soxla indi ay xalaat ba nga xam ne daf lay doy sëkk ba du la ci wàcceel sax diggante boo jaamoo yàlla yow ci sa bopp yaa mën a organiser sa bopp dellu si ndax lu yàgg-yàgg ki nga xam ne dafa def bëccëgam bépp ak guddeem gépp mu di julli kii def bëccëgam bépp ak guddeem bépp muy sabablu du ko gën a domin mukk ci adduna du ko gën a jekk du ko ëpp wërsëg du ko ëpp àll te kalee ko gañee ëllëg yomal xiyaam kon adduna dañ koy jox wàllam rek cëram ëllëg it ñu bàyyil ko cëram xale yi nga xam ne dañu soog a jóg kon mag ñi moom la wëlbatiku gën a yomb ndax xam na ne dee soreetu ko xam na ne li mu weesu lépp bu ko jàppee ne lu mu perte la li mu defee xamul nu mu toll mu fas ci yéene tabax ëllëgam moom ku ko ne delloo si sa xel mu delloo si xelam waaye xale bi nga xam ne xamagul dara mu mel ne bol boobu ñu tooyal ba mu tooy nga xam ne fi mu ne ci loxoom moo koy melal na mu bëgg mu mel ko te xalal buy soog a juddu dañu ne xol bi day day def ay tupp-tupp bu nee benn tupp-tupp bu ñuul ne benn bu weex xam nga ni tupp-tupp yu ñuul yi mooy wàllu seytaane tupp-tupp yu weex yi mooy leeru yàlla suñ boroom bu fekkee ni mu ngi tàmbalee jaamu yàlla tupp-tupp yu ñuul yi day far di far ba jeex mooy boroom xol bu leer boobu nga xam ne su ñaanee yàlla mu may ko bu tuubee mu jéggal ko bu ñaanalee keneen it ñaan nga nangu bu deexee texe fu mu jaar itam malaayika yi dañ koy jiitu di xàllalam yu muy jaar di ko ñaanal ak mucc ab njëggal ak texeg ëllëg borom xol boobu nga xam ne dafa sàggan def bànnee xam muy njiitam lim bëgg rek lay fexee am di dund ni bàyyi ma yi dundee nga xam ne bàyyi ma de xam ngeen ne bu aajowoo lekk day farlu ci lu mu lekk rek bu maree farlu ci lu mu naan bu sonnee goor di noppalu wala mu nelaw nga xam ne bànnee xam ne jiital topp ci rek te du génnoo ci xelam dund googu lay dund te bu ëllëgee nag bàyyi ma bi moom gën ko demee ndax bàyyi ma bi kenn togg ko jëf àjjana ak safara yoonam nekku ca bu yemee xiyaamee ca taxawaay ba ba mu fayoonte ak moroomam yi fayoonte nit ñi ndax bàyyi ma bi ko mbëkkoon sax ay bëjjën te moom amul bëjjën moom la ñuy saxal bëjjën kooka xañ koy bëjjën mu mbëkk ko na ko mbëkkee woon doomu aadama yi ku ci jaar ak ñoom ci foo xam ne fii sharia mayewu ko kooka itam bàyyi ma bi day fayu ci moom bu ko defee bàyyi ma bi moom dañ koy daal di jëli mu nekk suuf suuf nga xaw ne yaa laytanii kuntu turaaban ak a neexoon man nekk suuf mel ni bàyyi ma yi waaye du ko mën a nekk ndax suñu borom daf ko bind muy doomu aadama mu sàkkal ko yoon wu mu war a jaar xamal ko li mu war a def xamal ko li mu war a mooy tandiku defu ko lu dul topp gaa yi mooy mooy in humu illa kalan ayni bal humu adallu sabilan doomu bu kon war na xalaat li ci kanamam muy toog loolu nag béréb boo xam ne day wéet di delloo si tra bàmmeel ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ma seet naw nit naan ko mën a jaamu yàlla la day laaj ndax na mu demee ci fàttaliku dee buñ ko nee dee nag day moom taxul mu di ko faral a def ci xelam mu ne kooka day fa ngeen ko te néewu fa waaye bu fekkee ne dañ ne ko daanaka du jóg ci gémmiñam daf koy far fàttali ko di ko waxtaane mu daal di ne waaw kañ kooku mooy waaja ndax dee moom ku mu nekk ci sa kanam te xamuloo kañ la doon na ngoo boo ko faralee fàttaliku doon na ngoo jaay mukk sa àllaaxira jëndee ko àdduna te jaay sa àllaaxira jëndee ko àdduna ku delloosiwul sa xel rek danga nga ko def te doo ko yëg boo gisee ñu naan toog benn béréb xalaat seen saa rek ngay xalaat gi ci sa kanam moo gën jaamu at yeneen ulama yi ne moo gën jaamu téeméeri at delloo si gi mu lay delloo si di nam sa di ko setal ndax boo dee fàttaliku dee day tax nga ragal yàlla ragal sa ragal bàkkaar boo dee fàttaliku sukuraat day tax nga ragal xisaab ragal xaq jaambur yi bu fekkee ne da fàttaliku itam tiraayu bàmmeel daan tax nga wattandiku yenn ci moy yi taxawaayu bis penc ba noonu ñu ne nag bu fekkente ne xale bi nga xam ne dafa jëp jëm ci adduna boo xam ne dana wuuteeg nun adduna bi nu nekk ndax fi mu ne buñ seetee ñi gën a bari ci nun ba ñu juddoo nekk jullit ba tey ñu ngi ci lislaam génnuñu ci ñuy moyet ñuy sàgg nag lu ñu mën a def ñu ngi ci lislaam léeg-léeg ñu dégg waxtaan wu leen delloosi ñu dellu gannaaw te loolu rek xéwalu suñu borom la léeg-léeg ñu tiim ku dee wala ñu xamoon koo xam ne kii daaw ñu tàqali ko moom ñu xëy suul ko gisatuñ ko léeg-léeg seen xel di dem ci moom loolu rek dana jàjjit nit mu dem waaye nag xale yi nga xam ne ñooy ñëw suñu gannaaw ñu jara ittewoo seen mbir la ndax bu ëllëgee bu ñu réeree daañu nu poñee ne nu lu tax yaruloon nu woon démb te yarub tey nit ki day delloo ci xelam xam ne du caa génne yar booy fab di dóor rek la déedéet xale yi léegi gannaaw dañuy wëndeelu dañuy dugg ci biir adduna bi fu ne la ñuy dem ku ne la ñuy dajeel xew-xew yi xew yu mësula xaw yoo xam ne maam yi xamuñu ko woon baay yi xamuñu ko woon dañ koy fekke te liy wëlbati nit ñi bari seytaane def yooyu yëpp mu di ay gànnaay mu gën a bari doole lool kon xale yi li ñuy def moo di di waxtaan ak ñoom ndax ku am njabootu tey doo noppi de boo noppee rek bu ëllëgee yow ci sa bopp da nga jaaxle moom dana sonn waaye yow da nga jaaxle da dëkkal ci noppam di ko wax li koy lor di ko xamal na mu koy lore di seet ña muy àndal di seet ña muy toogaaleel ndax mag mi sax ci boppam bu fekkee ne day def lu mu jot lekk mu ne la xolam di mel bu dee ku mu jot ànd ak yow takkoog yow loolu gis ju ne mën na koo def jullit bi day tànn béréb yi muy dem di tànn ñi muy àndal di tànn ñi muy takkool ak ñi muy xaritoo ndax fa inna muqarin bil muqarin yaqtadi fa inna qarin fa inna qarinan bil muqarin yaqtadi yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam dafa ne nit ki ifaal كل ما شئت تفعل مثله وخاللا من شئت تغدو شكله لكل lu la neex waaye loo lekk rek ne la wér ne na mu mel la sa xol di mel ba ba ngay tàggoog moom bu fekkee ne lekk nga lu xaraam doo ñaan ñu nangu ko doo julli ñu nangu ko te lu xaraam loolu feeg ñu ci sa biir daf lay xiir ci moy daf lay xiir ci sàggan day tayyeel daf lay tayyelloo jaamu yàlla feeg lu xaraam loolu nga ci sa biir bu fekkente ne itam yaa ngi tànn xarit di ànd ak moom di takkoog moom da ngay mujj mel ne moom moom ngay doon rek mooy waxaale leen ma chita taxdu shaklahu da ngay mujj nekk di meloom melow nit kooka meloom yi ci nekk moom yépp nekk ci yow ndax boo gisee ñuy wax sëriñ sëriñ du lenn dudul ki ngay roy ki nga xam ne da ngay déglu ay waxam mu jëriñ la nga gis ko fexel dem ci yàlla mu di la ko faral a fàttali ndax yonente bi salaa sallam noonu la daan def ak saaba yi daf daan def fu mu toog ak ñoom di leen delloo sil ëllëg di leen xamal ni nga xam ne sàggan ak tayal noonu lay taxe nit ki di ko ñàkk ëllëg bis bu ñu taxawee di peese ay jëfam jëfam yu rafet day dal di néew loolu ay bàkkaaram bari loolu tax ak saxaaba yi ni mu ci amee woon ñoo xam ne ñii seen àjjana daanaka dañ daan janloog moom it teewul ñu xeet li ñu daan def ndax teew gi nga xam ne moom la yomal xiyaam di teew ci seen xol ba mel ne dañ koy gis teew gi nga xam ne moom la suñu borom jàlla jalaaluhu di teewe ci seen xol ba mel ne dañoo jàlloog moom ko mu tiim leen ba lépp lu ñuy def yàlla teew ci seen xel teew gi nga xam ne moom la seen jëf lu ñu jàdd lu mu néew néew ñu seet seen moroom yi ñu àndal nga xam ne defuñu ko ñoom ñu ñee leen saxee def leneen loo xam ne dana tax ñu jot ñooñu du ñu nangu kenn ku leen raw ci seen moroom yooyu loolu teewul yonente bi sallallahu alayhi wasallam leen daan daggi fu mu toll di wax ak ñoom naka noonu kon ki nga xam ne aju na ci yow gannaaw yow ab sàmm rek nga te ëllëg li nga sàmm dañ la koy laaj xale bi nga xam ne yaa ko jur wala nga amee ko te bu ëllëgee ñu di la laaj nan nga ko sàmme woon foo toll kon yow ci sa bopp yaay njëkk a amee melow rafet mu soog la cay mën a roy waaye bu fekkente ne yow miy yare yaru woo ki nga yar du yaru mukk mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon buñ gisee seen influence maanaam li ñu def ci nit ñi du lu dëgër te du dañ ba léegi ñi leen gisoon ak ñi gisoon ñi leen giseen sax liñ lay wax dañ koo melowoo ba nga xam ne buñ la waxul woon dara te nga dëkk ñoom it da ngay dal di jub kon borom kër bu nekk dafa war a fexe ba këram nekk milieu boo xam ne milieu njub lay doon di milieu l'islam boo xam ne ku fa juddoo bu la kenn waxul dara it doo xam lu bon da ngay xam lu baax rek di ko def ndax bu fekkente ne soxna si nga xam ne mooy l'école bi njëkk ndey mooy l'école bi njëkk ci xale bi kon ñoom am nañu responsabilité yu rëy ëllëg ndax bala ñuy jot ci bàyyi mi xëy di liggéeyi di wàcc ak di tukki di dem ak ñëw di toppatoo ji lu muy dundale ay njabootam yaay ji nga xam ne moom la doom di taqool mooy lekkoon bu njëkk bi te moom la responsabilité am gën a rëy te ëllëg moom lañu ñuy njëkk a layool fekkee ne yaay ji ku yaru la ku jub la ku bëgg lu baax toqi ci xale bi balay agsi buy agsi ci baayam day fekk muy xale bu jub bu jógee ci baayam dem ci jàngalekat bi fekk muy kilifa gu jub gu koy jaarale ci yoonu jub bu ci jógee dem ci mbedd mi fekk moomam yëpp noonu la leen seen yaay yare ak seen baay du génn mukk ci milieu boo xam ne milieu njub la milieu farlu la milieu muñ la ndax yooyu yëpp dañ koo jëmbatoon ci xolam ba muy xaleel yaayam di ko ko xamal ak baayam bu fekkente nag du yaayam du baayam kenn ku ci ittewoo mbirum yar wala ëllëg ëllëgi xale bi wala ittewoowoo ëllëg bu ngeen taxawee di laajoo ci kanamu yàlla nga jur ko rek bàyyi ko li baahima bi di def fequloog moom dara lu dul jox ko mu añ jox ko mu reer jox ko mu ndekki doo ko yee mukk doo ko laaj mukk ñi muy àndal ak fi muy dem waxtu wu ñëwee rek baax na bu fanaanee ci àll bi wala mu ñëw quatre heures du matin sa yoon nekku ci te day yow yaay sàmm bi nga xam ne bu ëllëgee dañ lay laaj na ko sàmmee woon bu fekkente ne nag yaay ji nga xam ne mooy lekkool bi njëkk ci xale bi ku ñu yar la te xam ngeen ne jigéen de moom la ñuy dénk góor yonent yi ak wàll yi ak xokamaaw yëpp olamaaw yëpp ay jigéen lañ leen dénk suñu borom nag balay dénk jëmm ji roogu diis dana seet ba xam àttan na ko wala déet boo xamee ne am na ay jikko ak i melo yu ko mën a dékku te kàttanam ci ngëm àttanu ko ñu fab ngëmuk gaa ñi nga xam ne ñoo séq diwaan ba te nekk ca gox ba ñu séddal leen ko ñu yenu ko waaye bu ko defee dana ca jëriñu dana ko texeel waaye nag texe gu yam lay doon waaye bu fekkente nag moom ci boppam dafa sell sellal biiram sellal bitteem xam ne muy yare doomam waliyu ba wala yonent ba lu mu màgg màgg lu mu am ëllëg ñoo koy bokk al umm madrasatul banina kon yaay mooy école gone yi kon cir bu njëkk bi moom lañ ko jox bu fekkee ni def na xaqam def waru garam ba mu mag léegi wu góor wi soog a ñëw moom nag moo gën a jafe la ndax day fekk ki muy yar am xel am ay bëgg-bëgg di dem di dikk te kee moom ba mu ko amee muy yaay ji xale bi demul dikkul kon moom ci boppam mën nañ ne lu ne ci moom moo ko def ndax moo ko ci def ndax xale bu fekkee ne magam yi dañoo jub xamuñu lu bon nekk ci njub yaay ji nekk ci bu jógee du jaar wenn yoon lu dul yoon woowu lay jaar bu fi jógee baayam moo ko war a jàngal diine jàngum diine nag du mën a fànq njàngum adduna njàngum adduna nii am na ci loo xam ne daf nuy xamal daf nuy dimbali ci sunu diine ndax nit ki bu génnee ci jamono bi may wax adduna bi ni mu te jàngul dara xamul dara waxuma sax mag ñi nga xam ne xëy na raw nañ ba noppi waaye xale bi ñi adduna bi gëmloo nga xam ne lu xew fa gën a sori ci penku balay ngoon mu agsi fi nun la xew ci fa gën a ci sow day agsi fi nun nit ki jóge fu nekk nga di ko gis mu dikk ku meloon ak la mu àndal xale yi juddu fekk àdduna bu mel noonu dañoo war a gànnaayu gànnaayu gu du dara lu dul nañu xam àdduna bi ñuy dugg na mu mel nañu xam li ñu amee muy diine lislaam lu mu doon nañ xam ne ñeneen ñuy woote leneen ñu ngi ci àdduna na nañu xam ne ñi ci lislaam ñi ci jullit ñi du ci du ñu ñuy ëpp doole ci adduna du ñu ñuy ëpp ay pexe du ñu ñuy ëpp ay jumtuwaay waaye nag ñoo yor dëgg bu ko wóoree ne ñoo ne ci dëgg mu wóor ko ne luñ ko ëllëg te du lii ay caaxaan yoo xam ne du dëgg mu wóor ko xam lenn nag bokkul xam lépp ki nga xam ne dafa xam médecine mën a faj tekkiwul ne dafay ingénieur de point G dafa mën a tabax xam tabax bu ne ak lu ne nañ koy bindee nañ koy liggéeyee ba mu taxaw ki xam mathématique tekkiwul ne dafa xam itam histoire kon bu duggee ci adduna bi gis ñu amee xam-xam yu kéemaane itam lu xam-xam ba bari bari lu mu yéeme yéeme ne ko wóor ne lii dëgg moom mooy l'islam ji mu nekk te ñii dañoo spécialisé ci leneen jàng loola xam ko waaye jànguñu l'islam moo leen ci téye dugg ndax bu fekkee ne xale bi dafa am juróom-benni at ñu dugal ko école muy jàng lekkoon ba am baccalauréat am jóge fii dem université bu mu mën a dem moo xam tugal la wala Amérique la wala feneen léegi li muy jàng li muy liir mooy courant de pensée yooyu nga xam ne ay boroomi xam-xam yoo xam ne xamuñu luy lislaam te seeni xalaat dong la xalaati doomu aadama dong la ku ko weddi nga seet marxisme léninisme am na si jamono yoo xam nit ñi dañ koo def ne gëm ko muy lu rëy ci moom ñoom ñu fonk ko naw ko lool gëm ko nit ñi nit ñi gëmee yàlla waaye gannaaw xalaati doomu aadama dong la woon nu dem ba ndax nit moom lu yàgg-yàgg dafa tënku ci jamonoom tënku ci bérébam tënku ci tangam tënku ci li muy gis kon nit gis-gisam lu gàtt la Karl Marx bi muy indi xalaat yooyu ak ya dund ak fa mu doon dunde ak li mu doon jàng ak li mu gis dong fa la xam-xamam yem waaye la mu bind du woon alxuraan léegi gis nañ ko leer na alxuraan ba mu fi dikkee ak léegi leewu mat ñaari junni at ak juróomi téeméer daanaka leewu mat ko te ba léegi bis bu ne tey gën a xew kon nga xam ne nag doomu aadama moom lu xalaatam ñaw ñaw lu xam-xamam bari bari bari bari bari bu mu la nax xam na leekat waaye li nga nekk moom xamu ko gaa ñooñu nag nga xam ne dañu fee jóge kon lii courant de pensée yooyu mu yéem leen ba ñu gëm ko te doomu aadama ne ñoom def ko li tax ñu gëm loola ba bàyyi ko moo di bañ fiy jógee amuñu woon yóbbal xamuñu woon dara ci diine seeni a leen ñoom bu ëllëgee bu ñu laay ak ñoom yey leen ndax bu ñu dellu see dañuy jàpp ne kat ñii fi nekk liñ xamul a tax ñu nekk ci diine ji waaye buñ xamoon kon communisme la ñuy gëm wala capitalisme wala leneen kooku kon xale boobu ay waajuram lor nañ ko ndax luñ ko li mu waroon a xam balay dugg ci adduna boobu adduna boobee ñu jëm dafa am lu mu laaj te mooy gànnaayu am loo yalfandoo ak loo lal te loolu mooy nga wéral sa gëm jéem a xam lislaam ji nga nekk lu la ci lënt nga laaj ko ba xam fi mu tegoog ni mu mel yeneen diine yi ci def ak yeneen xalaat yépp loo ci laaj bu soobee yàlla ñu xamal la ko ndax dañu ne xam xam-xam xaw ma bokku ca ndax dañu ne sàmm bi na bukki yëg lii gën a bare ci àll bi la gën a bare ak xam till xam seeni bërëb farlu mën a wàññi jur gi yamale leen fay war a yem moo tax jamono bii li nga xam ne boo seetee xekk matu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ni mu waxee ne sëriñ ñett la cheikhu taalim bi mooy professeur bi bu la jàngalee tàggoo naa yow amee lu la leneen bu ëllëgee sax mën nga bañ a daje wala boo daje moom doo ko xamati cheikhu tarbiya mooy ki nga xam ne moo lay yar kooku lay yar boo amoon sëriñ boo jébbalu ci moom it du tee cheikhu tarbiya maanaam ki lay yar xamal la sa diine xamal la adduna bi nee na kooku bokk na ci ay chartam na xam jamono bi xam yàqu yi fa ñuy jógee xam na mu demee lépp lu ci nekk war na koo xam waaye du caa gin dafa war a jàng islaamam rek yem ci bu ko defee ëllëg si biir dana bari ay lënt te dana bari ñoo xam ne du leen mën a wàññi ndax la ñu xam te xamuñu ko te ko moom ca lañ koy lëeree waaye bu fekkee ne dafa bëgg a jubban si bëgg a yeete bëgg a leeral na fexee xam lépp limaamul xasali radiallahu taala anhu noonu la defoon jamonoom xam ngeen ne falasifa yi maanaam philosophie ahmadul kundi ak ibnu sina ak alfarabi ak ñi ñu tuddee néoplatonicien yépp dañu wax jàngoon philosophie ba xam ko lool am ci ñoom ñoo xam ne ay jullit lañu ñu bind ay téere di defi conférence di théoriser di walbati nit ñi di leen jàng di leen xamal philosophie di leen indil ay sikk ci diine wan di leen sikkloo diine di leen gëmloo philosophie limaam al xasaali yu gis ne ñi nga xam ne dañoo bind ay téere di weddi philosophie yooyu yépp ak di xamle ne li ñuy wax ak réer la du dëgg yépp li tax amul benn taasir amul benn jeexital ci nit ñi philosophie yi dañoo daal di ne ñii gis ngeen li ñu gëm rek la ñuy wax alxuraan la ñuy wax ak hadis te waaye waxe wu ñu xel loolu nag fanatisme rek dañu ko dañ leen ko wax rek ñu gëm ko waaye li ñu leen di wax ñoom ubbi wu ñu seen xel ba tax na kon ñoo ñee daan bind li tax amuñu benn influence bu ñu gindee nit ñi ñu itam philosophie yooyu am sikki sàkk wala ñu deng deng wala ñu wëlbatiku li ñu umpale philosophie li ma xasaar yi nag dal di jàng philosophie ba bind ci téere maqasidul falasifati ba nga xam ne xam na li philosophie bind yépp ba di ci taalif mu dellu si rek soog a bind taafudul falasifati wane ne nag ne philosophie li ñuy wax du ma leen weddee aaya alquran wala ma di leen weddee hadis ci domaine bi ñu dugg laa leen di fekk ba rey leen ci sukkandikoo la sukkandikoo ci xel ak philosophie boo wane ne démontré bu leer ne li ñu doon wax yépp dara wóoru ci lépp ay hypothèse rek la hypothèse nag fait expérience vérifié wu ko mën na comporter dëgg mën na comporter fen mu dem nag ba wane ci expérience ne li ñu wax lépp dara du ci dëgg du mu bindee nag taxafutul falasifati la sooga suufeel tur yi philosophie yoon ci penku yépp ba ñoom ñëpp ñu wedam nit ñi bàyyi leen wan leen gannaaw dal di walbatiku ñëw sowu ci fi ñu wax Andalousie mooy Espagne ak Portugal léegi booba l'islam daf ko yilifoon ndax jullit ñi xam ngeen ne Espagne jullit ñi yilif nañ leen araab yi yilif nañ leen ñetti téeméer juróom-ñetti téeméeri at soog fay jóge nañu def itam ba ñu nangu réew ma ci seen loxo moo di sàggan wacc la l'islam digle waaye ma ne l'islam bu fekkee ne xale bi jox nañ ko gànnaayug l'islam mooy kii mën a defar réew ndax réew boo xamee ne ñëpp wacc nañu intérêt personnel nga xam ne kenn ku nekk yaa ngi fexee jëriñ ay jullit ngir ëllëg nga am maqaam mu kawe ci kanam yàlla ci bis penc ba nga xam ne yow xam nga ne am nga ay devoir ay warugar warugar yooyu fas nga yéene taxaw ci ba dara du ci manqué dara du ci mejj mu wóor la ne yow yow jullit bi yaay soldaar bi aar réew mi bu ëllëgee doo jaay réew mi ndax xam nga ne benn jullit boo jaay bu ëllëgee sa alaxira yàqu ndax xam nga ne képp koo yàq addunaam mu yàq sa alaxira nga xam ne yow jullit bii di xalel ëllëg yaay nekk attekat bi atte nga xam ne boo attee benn masala moo xam ne du dëgg wa man lam yaxkum bi ma anzalallahu fa ulaayka humul kaafiruun fa ulaayka humul faasiquun fa ulaayka humuz zaalimuun da nga taxaw ci kanamu yàlla loolu teew ci sax ci sax kanam ba nga a ger mu wóor la ne yow xale bii di jullit bu ëllëgee yaay gouverneur bi nga xam ne ya yilif région bi mu wóor la ne xaqi benn jullit boo ko gàddoo bu ëllëgee da nga ko layoot da nga ko yóbbaale ci sa bàmmeel te dana la xatal mu wóor ne la yow jullit bii di xalel bu ëllëgee yaay professeur bi nga xam ne yaay jàngale ci école yu mag yi bu ëllëgee képp koo xam ne kii ubbi nga boppam baragal loo ko yàlla wala nga xam loo ko xam-xam boo xam ne dana ko jëriñ bu ëllëgee dana yokk sa maqaam yi ma xiyam te dëgg la musal waaye waxtu woo xam ne ni bii incul euh, dugal nga ci boppam loo xam ne du dëgg mu lor ko keneen kum mu ko ku jàngal loola mu lor ko keneen ku mu xamal loola mu lor ko wala li nga xam ne ci lañ lay fayee mu di jàngale bi nga ne naa def loo xam ne day wàññi njàng mi moo xam da nga toog bañatee jàngale ji wala nga nekk ci classe bi di waxtaan wala nga xam ne da nga caa nekk jàngale yoo li nga war a jàngale di jàngale loo xam ne lii bokkul ci programme bi te day loo xale yi ëllëg wala muy wàññi seen ngëm mu wóor la ne bu ëllëgee responsabilité bu mag boobu leen tegu ci sa kaw mu wóor la ne yow xale bii nga xam ne jullit nga bu ëllëgee mën na fekk ne yaay ilimaan ji xam ne yaay jiite ci jàkka ji bu sa julli boo xamee ne bii nangu nañ sa nangu julli ñi topp ci yow ñëpp waaye waxtu woo xamee ne lekk nga lu léewul ci sa biir sa julli googu duñ ko nangu te ñi topp ci yow it duñu ñi kenn duñ ci nangu julleem mu wóor la yow mii nga xam ne yaay xale bi ëllëg yaa yori réew mi te boo yore réew mi bu ëllëgee si biir yéen bu diis la yàlla teg nga xam ne yàlla fas na la yéenee jox maqaam mu mag wala mu gën maqaam mu mag yi moo di masi jullit yi nekk ci sa kanam ci sa loxo nga am kàttanu mën cee jëf looy si jëf ci lu baax kenn ku ci nekk la mu jëf yow sa jëf yoolam dana fukk ca jëf ji nga xam ne kenn si ñoom moom la jëf ndax maqaamam béréb bi nga tooge moo ko war nga def loolu sa xel xam la ni itam boo sàgganee wala nga yàq itam noonu lay réer loolu lépp bu fekkente ne xale bi jiit na ci xolam bu ëllëgee réew mi du man lu dul jub waaye réew ku ko man a yorit loo góor góorgóorlu bu fekkee ne baadoolu yu ñu kenn yaru leen kenn jaaralewul leen yoon réew ma lu yàgg-yàgg loo góorgóorlu góorgóorlu ba tul day suux ndax jullit nit ñi mbooloo mooy peuple bi daanaka ñoo amee réew ñoo amee réew bu ñu bañee dara loola du sax bu ñu bëggee dara loola sax li ñu bëgg nag nay lu baax nañuy sàmmonteeg ni nga xamee ne l'islam boo ci nekkee bu fekkente ne yëkkati nga benn fitna mooy loo xam ne lii lu mel ne rewalt la wala luy indi ay la képp ku ca dee yaa gàddu ba kanam bu ëllëgee yaa koy layoo kon da nga jub da nga jéem a jaaral nit ñi ci li nga xam ne mooy yoon mooy sharia te sharia moom dafa sopp jàmm jàmm nag mbokkoo gi ñu doon wax ci biir jàmm rek la xaj te mbokkoo ngi tàmbalee ci bi nga xamee ne jullit bu ne yéene nga ko li nga sa bopp moom nga yéene jullit bu nekk moom nga yéene itam mbindeef mu nekk doomu aadama ju ne loolu sax ci yow nga jëflanteeg ñoom loolu mbokk nag dañu ne alalu yàlla la ndax jullit ñi bu fekkee yàlla ci boppam def leen a yeew ci buum goo xam ne ku ko dagg bu ëllëgee doo am lay bi nga xamee ne sharia ci boppam bu fekkente ne fii mu nekk ci sharia fiq bu ñu ko dee jàng daana gis ne boo rombee fii xarum jàmbur wala bëy mu laxasu ci buum ba buum ngi xerandi ko mu wër la ne minute mu dee te borom jegewu fi mën loo dem waxi ko ko bu fekkent ne boo ko dundee boo ko dindee mu dund yoon sant na la nga làqal ci buum gi mu dund boo xamee ni itam boo ko reyul mu dee yoon sant na la nga rendi ko waaye loolu kañ nga koy mën bu jullit ñi defee seen bopp benn ndax boo rendee xar mi ci jamono joo xam ne ni jamono jii la mel nga xam nit ñu bari dañoo dëng te du ñu def lu jub day dal du xalaat lu dul ne rek yaa ko tey rey ko danga nga maa añaane te mën na laa yóbbu police loolu yëpp li koy waral mooy nit ñi melul war a mel boo gisee ñu naan sarax li muy am am am doole nga xam ne bu ëllëgee yomal xiyaam ñetti kër ya fa nekk nga xam ne dañuy xëcc jant bi ba yuur nit ñi xet muy bëgg laal seen i bopp ñaq wi labal nit ñi bu keroogee ñu naan ñetti kër ya fa am waxtaan nañ ko ba tàyyi genn kër gi mooy sarax ak li sax di am am doole lebal sa mbokkum jilite ko ëpp ndax bu sarax dee benn leb leb leblee di fukk ak juróom-ñett noonu la ko ulama yi waxee sarax benn la leble fukk ak juróom-ñett la waaye booba mooy bi nga xamee ne boo lebalee sa mbokk wala sa xarit wala koo xam du def ci xelam lu dul nam la fayee waaye bu jamono demee ba nga xam ne koo lebal du la fay wala nga topp ci ba ba sonn ca lu leblee ndax koo lebal du la fay kon jullit ñi ñoo xañ seen bopp te yaa bay leble loolu lépp dafa aju ci yar bi nuy wax yar bi mooy mën a tax mbokkoo gi itam am yar bi ak njàngale mi jàng moom ngir nit ki ñu limaale ko ëllëg ci ulama yi borom xam-xam yi lu yomb la ndax boo xamee say farata yi boo xamee sa farata yi rek xam aslëf ci sunna yi te jéem koo jëfe bu ëllëgee fu borom xam-xam yi taxaw xam ngeen ne borom xam-xam yi bu yonent yi wéyee ku mënul awliya yi wéy ñoo ci topp te ñoom sax dañoo jaxasoo awliya yi ndax bari na ñoom ñu nekk ñu bokk ci awliya yi fu ñu taxaw nga taxaw fa li tax ñu ne kii sàkku xam-xam waxtu wu jógee ni nga xamee ne da gis sa xarit mu sañse nga fab li nga koloo woon wala yére bu rafet lalal ko ko ci kanamam ngir di ko teral woon ko ne bëgg naa ci ni nga mel malaayika yi noonu la ñuy lalee ay laafam ci kii sàkku xam-xam te kii sàkku xam-xam ki ëpplewul tuyaaba ki koy dimbali dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ne kun aliman aw mutaalliman aw muhibban wala takun il xaamisata fa tahlika Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu teg ci ne euh, way ko kun aliman aw mutaalliman aw mustamian aw kun muhibban li zawi na nga nekk di borom xam-xam wala nga nekk di kii sàkku xam-xam kii sàkku xam-xam nag kii wut lu mu xam rek ak nu mu ko anam gu mu ko mën a wute donte dafay fekk fu ñuy waxtaane mu déglu ko jàpp ko it ma nga sàkku xam-xam wala nga nekk ki koy déglu fa ñuy nga di ko déglu wala boo mënul ñett yooyu yëpp nga sopp leen ngay aji ñeente waaye bul nekk juróomeel bi dangay ngay alku kon juróomeel bi mooy ki ci ki ko faalewul du ko tax a taxaw du ko déglu soppul ña ca nekk nekkul ku koy sàkku amu koy itam mu ne kon da ngay alku ëllëg ñu ne loolu lépp xam ko mooy tax jullit ñi mën a doon bopp benn jullit ñi ña ca penku ña fa gën a sori ci penku ak fa nekk fa gën a sori ci sowu benn lañu ñoo raw ñu bokk ndey ak bàyyi ndax jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam defe ne jullit ak jullit dañoo mel na tabax bii ni nga xam ne noonu la birig yi jàppaloo ba tabax bi dëgër noonu la jullit ñi seen xol yi war a jàppaloo mu xam la itam ne bi nga xamee ne dangay jàpp benn bant bës ko mu damm nga boole bant yu bari bës leen ànd gi ñu ànd ñu takkale ko tax du mën a damm jullit ñi bu ñu nekkee benn dañuy am kàttan goo xam ne dara du leen ñaaj dara du leen yàqal dara du leen not itam waaye bu fekkente ne jullit ñi kenn ku nekk da ngaa téye sa bopp loolu fu muy waree mooy yàqu-yàqu boo xam ne xam nga ni mënuloo koo faj te ragal nga ne boo toogee wéy ca ñu yóbbaale la ca walla ñu wàññi dara ci sa ngëm bu keroogee yoon moom santaane na nga gàddaay ndax gàddaay du fi jóg mukk hmm? ban waxtu jot ñoo leen di delloo sant bi leen ndokkale itam ci jataay bi yal na suñu borom jéggale bàkkaar yëpp ñu fi indiwoon faj tawat yëpp defal ñu fan yu gudd te boole ñu te ñoom mu tànn nga xam ne